mbokk yi euh, conférence de presse bi force vive du Sénégal di amal tey jii nii li ko sabab mooy lancement wu euh, mobilisation bu mag benn ndaje bu mag a mag bi nga xamante ni peuple sénégalais mu ngi koy dëgmal ci le vendredi 12 mai 2023 incha allah fële ci place de la nation. dañuy profiter rek ci jotaay bi pour jaajëfal bépp sénégalais sénégalais yi nga xamante ni yu fasanti ko tey ñu ngi toll ci lu toll téeméer ak euh, ñetti fukk organisation ak ay euh, personnalité indépendante yi nga xamante ni signé nañu chartu F24 euh, ne ni bokk nañ ci sénégalais yi nga xamante ni ci fiñ ci toll dañuy taxaw temm pour Euh, xeex pour démocratie bu senegal xeex pour àq ak yelleefu doomu aadama ci senegal mais surtout pour jóg taxaw ne ni troisième candidature du fi amee mbokk yi senegal dafa toll ci ay guddi yu jafe mooy li tubaab yi di duppee mu sommes à la croisée des chemins te loolu dafa laaj taxawaay bu dëgër venant de toutes les filles et de tous les filles de ce de ce de ce pays ci jamono jii ñuy amal conférence de presse bii àdduna wërngal këpp a ngi célébrer journée internationale de la presse ci ay bërëb yu fasantikoo ci àdduna nit ñi ñu ngi màggal liberté wu presse nit ñi ñu ngi màggal euh, liberté d'opinion nit ñi ñu ngi màggal seen taaru presse ak cër gi seeni nguur jox seeni journaliste ak seeni presse un peu partout waaye Sénégal fii ci Sénégal ci jamono ji au même moment euh, coalition des associations de presse mu ngi amal fële ca maison de la presse Babacar Touré benn ndaje bi nga xamante ni euh, pour naqarlu la journaliste yi nga xamante ni nguuru Macky Sall mu ngi leen di xoqatal di leen tëj di leen jaay doole ci lu dul dëgg du yoon tey jii nii ñu ngi ñuy yëgal balaa ñuy tàmbali conférence de presse bi ni journaliste Babacar Touré bi nga xamante ni ci ay liggéeyam lañu ko jàpp di ko enquête ay retour de parquet yu dul jeex tey jii ni jàkkaarloo na ak juge ñu mettre ko euh, nu mu tuddati ñu ñu yóbbu dossier information judiciaire mu war a dem kaso ci lu dul dëgg du yoon Babacar Touré bu ñu ko yóbboo rëbës walla ci beneen kaso fii ci Sénégal dina fa fekki yeneen citoyen yu taxaw yu am taxawaay bu mat sëkk ñoom it ci li ñu ne ku mel ni abdu Karim Gueye Karim Xurum Xaq di activiste di militant bi nga xamante ni la seul tort qu'on peut kole fii ci réew mi mooy bëgg réew mi taxaw temm senegal jaral ko lu ne ñu ngi ko tëj ci kaso bi dina fa fekkit ku mel ni nit dof muy artist bu engagé saa yu Sénégal laajee mu taxaw ñu respecté ko ngir taxawaayam ci réew mi waaye it dina fekk dina fa fekk ku mel ni Bassirou Diomaye Faye Bassirou Diomaye Faye di doomu réew mi engagé politiquement nekk ci organisation politique jibal ay kàddoon tax ñu ne ko ràpp ci kaso waaye it dina fa fekkit Hannibal Djim bi nga xamante ni mu ngi bëgg yàgg ci kaso bi moom it ñu ngi ko fa tëj ak tant d'autres citoyens tey jii nii lu toll toll na ci ay téeméeru citoyens yi nga xamante ni ay détenus d'opinion lañu ay détenus politique lañu Macky Sall ak nguuram mu ngi leen xañ jànt bi ci lu dul tëgg du yoon. F24 mu ngi jaajëfal di encourager journalistes yi di encourager chroniqueurs yi waaye it di encourager intellectuels yi ak bépp. aji bëgg réew bi nga xamante ni mu ngi xeex bés bu yàlla sàkk ci ay intervention médiatique am waaye it ci ay ci ay jéego yi muy teg pour que dëgg mu sax ci réew mi pour aar suñu démocratie bu ñu jógee rassemblement bi ñuy dëgmal incha allah vendredi 12 mai 2023 fële ca place de la nation bi nga xamante ni am na symbolique ndax gis ngeen en 2011 2012 ñi ne ci nguur gi tey àndoon nañu ak ñu bëri ci ñun ñu def fa ay rassemblement yu bëri contre la troisième candidature de Abdoulaye Wade ñoom ay kaddu yu ñu fa am ñu ngi ci ay vidéo tey ñu ngi koy seetaan waaye président Macky Sall ci jëm boppam ñu ngi gis image yu maire Gaddoom bi mu ñëwee keroog Fou bokk ci mouvement Y en a marre moo ko jox micro pour mu ne non à la candidature de Abdoulaye Wade donc ca place de la nation boobu ci la ñuy lancer démarrage wu plan d'action wu force vive du Sénégal bi nga xamante ni dina tàmbali ay activités ay manifestations ay mots yu fasantikoo yi nga xamante ni ñu ngi woo peuple bi pour que mu déglu saay su ne ak jamono ju ne li mu laaj ci ay activités incha allah F24 dina ko amal te dina ko fësal pour que Sénégal yépp ànd ci pour que ñu tabax benn force comme ni ko turam ni muy wuyoo turam force 24 benn force citoyenne bi nga xamante ni li koy lal rek mooy xeex pour que dëgg pour que euh, jàmm sax ci Sénégal waaye jàmm ji nga xamante ni day lalu ci dëgg liñ ci mbëbët nag mooy fexe ba Euh, sénégalais yi xam ni ci suñuy taarix ci suñuy maam taxawaay yi ñu fi amoon ci suñuy suñu aada suñu culture bañ jom ak dëggal jubal waaye ci suñuy diine sax yi fi ne ak suñu yenn maam yi nga xamante ni muy katolik di chrétien am nañ fi taxawaay am taxawaay ci dëgg ñu xam ni li war a mën a saxal dëgg rek ci réew mi mooy euh, li war a li war a mën a saxal euh, jàmm ci réew mi mooy dëgg incha allah loolu dinañ ci taxaw F24 dina ci taxaw avec toutes les forces vives du Sénégal pour que Macky xam ni jeex na léegi peuple sénégalais di ko subir di subir ay digle yi nga xamante ni du ko respecté mukk waaye di continuer di subir ay manipulation ay lal ay dëgg sërëx yi nga xamante ni ci onze ans yi da koy dee lal à chaque fois et à chaque fois peuple sénégalais moom mooy doon victime waaye que président Macky Sall mu xam ni intimidation yi jeex na peuple sénégalais dootul subir euh, ci ay action yu légal dans le respect des lois et règlements waaye yu déterminé des actions massives bu dee ay mobilisation lay doon dina dinañu won àdduna ni Sénégal fa mu newoon ay doomu Sénégal fu ñu newoon ñoo nga fa ba tey suñu démocratie bi nga xamante ni nguur gi mu ngi koy gàkkal di ko nërmeelal que Sénégal ay doomam ay jigéen ak ay góor pare nañu taxaw di maintenir ce flambeau xeex pour que démocratie googu vitrine de cette démocratie en Afrique bi ñuy bàkkee que ñu mën a continuer di ko mériter. loolu nag pour que ñu mën ko dinañu fexe ba ci suñuy action waaye suñuy kàddu à travers organisation yi nekk ci F24 personnalité indépendante yu nekk F24. à travers sénégalais yu nekk ci seen i kër jàpp ni F24 cadre la bi nga xamante ni ñëpp ñoo ci war a ànd pour que jàmm mu mën a sax ci réew mi waaye jàmm bu lalul ci dëgg dinañu fexe ba ñi nga xamante ni tey ñu ngi théoriser mbirum euh, troisième candidature Macky Sall ñu xam ni loolu teguwul ci dëgg ñu xam ni loolu du li nga xamante ni dina jëme réew mi ci ci dëgg ci jàmm ak euh, lépp li jëm ci li ni mel dañuy jeexal rek di rappeler ni F24 dafa judd gannaaw bu ay jigéen ay góor amee initiative di nasandoo di amal ay waxtaan ay organisation politique organisation de la société civile ay syndicat ay ay association ay mouvement ay personnalité indépendante waxtaan di booloo di waxtaan di juboo ci ay kàddu ba ñu teg li nga xamante ni moom mooy euh, F24 bi te képp ku ci engagé wu signé na charte keroog bi ñuy lancé F24 ca résidence Mamoun waaye tey it bu ñu paree fii dina am ñi nga xamante ni ñu ngi fi dinañu signe charte bi pour engage wu au sein du F24 xeex ba nga xamante ni article yi nga xamante ni président Macky Sall. modifier na ko ba mu permettre ko muy euh, di écarter ay opposants politiques waaye ñu toll ci guddi yi nga xamante ni am na yeneen opposants politiques yi nga xamante ni aussi euh, ay article code électoral yi ki Sall modifié tax na du ñu mën a bokk ci élection yi ñu jëm bu dee amuñu taxawaay bi bi war waaye it bi ñuy signé charte bi dañu engagé wu ni dinañu fexe ba détenu politique yi nga xamante ni ay téeméeri téeméer ñu ngi ci ay prison ak ay détenu d'opinion te nguur gi tegu ko fenn que ñu bàyyi leen ñu ñibbi ci seeni kër waaye it bi ñuy signe charte bi ñun ñëpp dañu engagé pour am taxawaay pour que président Macky Sall qu'il na fasse pas moins que ñenn ñi nga xamante ni organiser nañ fi par exemple en gis nañ fi code électoral consensuel à l'époque ñu dem ci ay élections euh, en 93 ak yooyu waaye surtout mu organiser ay élections yi nga xamante ni day tegu ci dëgg mu doon des élections apaisées des élections transparentes bi nga xamante ni képp ku ci war a bokk di nga ci bokk enfin damay séddaliwaat woote bi nga xamante ni F24 mu ngi koy woote di bépp sénégalais bi nga xamante ni jàpp nga ni suñu démocratie mu ngi nermeelu ak suñu constitution bi nga xamante ni mooy suñu charte fondamentale bi ñu boole ñun ñëpp mu tënk ni troisième candidature munu fi ne que bépp sénégalais comme référendum bi ni ñu voté woon ba wii gagné amul benn sénégalais benn président bi nga xamante ni mun na def plus de deux mandats consécutifs en commençant par Euh, président Macky Sall moom mii bi muy engagé constitution bi di ko wax démb maa ngi gis benn fiche bi nga xamante ni ci référendum bi ñu ngi def les différents points yi nga xamante ni moom la ñu war a voter et ci kaw ñu ngi gis question wu euh, candidature bi et il était clair que à partir de réforme boobu que nul n'a le droit de briguer plus de deux candidatures commençant par moom sax mi nga xamante ni moo président Macky Sall di woo bépp sénégalais incha allah le 12 à la place de la nation bu quinze heures jotee rassemblement bu historique la ñu bëgg am keroog rassemblement bi nga xamante ni ay jigéen yu am taxawaay ay góor yu am taxawaay waaye it ay ndaw yu am taxawaay ñëw keroog mu doon tàmbaliwu quelque chose de très gis nañ fi M23 waaye F24 bi ni mu tàmbalee ñu ñu nekkoon ci M23 xam nañ ni c'est plus massif. donc tàmbali bi le 12 mai la incha allah pour que président Macky Sall mu xam ni dafa war a ci li mu gën a gaaw renoncer à une quelconque idée de troisième candidature ndax baaxul ci réew mi et c'est pas conforme ak suñu charte ndeyu réew li mu teg que détenus politiques yi mu bàyyi leen ci li mu gën a gaaw waaye it créer les conditions d'une élection yi nga xamante ni day lalu ci dëgg mu doon élection yu leer que ñu ci war a bokk yépp ñu bokk ci mu bañ a am dëgg sërëx que ñu bañ a écarter benn candidat de façon injuste maa ngi leen di jaajëfal bu baax di jéggalu ci wolof yi encore une fois merci beaucoup